Ali Kalaj gi gars yi xam nga lan mooy Ali Kalaj Macky Sall nee naa leen dafa dafay utiliser bugguma wax sax utilise mais Macky Sall dafa ñuy nax sax jour muy ñun ñuy war a wax activiste yi muy Pape Alé Niang muy Ousmane Tounkara xam nga lan la ñuy naxee affaire aji Sarr affaire Sonko généraux yi day sóob Macky Sall tapet la du woo Adji Sarr du woo Sonko. mais dafa bëgg ñu ciy wax l'élection. élection yi dafa bëgg ñu ciy wax fatte fichier bi pap Alé la bëgg nga nekk fi ngi bi xam nga jël mais yow gars envoyé document yooyu ñoom lii lañ bëgg pap Alé ñoom ñoom def am ci sax leen di ci document yi jox ne dama bëgg ngeen yóbbu ko ci Pape Alé comme ñu jëlee Thierno yóbbu ko ci pap il faut mu def attention ci loolu xam nga nee naa leen keroog Tunkara dafa attaquer Pape Alé parce que Tunkara mu ngi naan Pape Alé dañ ko utilisé Pape Alé tontu na ko tey Alé tontu na Tunkara tontu bu saf parce que nee ko da à à l'étranger di wax rek ñun ñi nekk Sénégal war a dee Alé nee na mënu ko manipuler pour man Tunkara lay tontu comprendre Macky Sall lii bëgg ñu lekkante suñu biir wala moom mu jël ay nitam waxuma ne Pape Alé source am yëpp wóoruñu de mais daf Pape Alé dafa war a def attention xam ne ku mel ne Thierno après ñoo ko yónni ci moom. xam ne aussi document yi muy yor am na ci yoo xam ne Macky Sall ci boppam moo naan joxal leen ma ko Pape Alé parce que Macky lii la bëgg dafa bëgg nit ñi tiit di wax ci troisième mandat ba ñu fàtte Ali Kalaj gi xam nga la mooy Ali Kalaj ana fichier bi ana Matam juge yi kañ la ñuy wax ne dañuy bokk maatam ana euh, euh, euh, giraas yi xanaa giraas yi xeexu fi ñaari fan lan moo tax mu jékki-jékki arrêté xeex xeexu ñaari fan giraas yi Macky lii la bëgg bu leen ma wax waxu Fatoumata Fouta Tampi sax waruma ci wax dañ ci wax wax tuuti rek avancé comme li ma wax ci Wally Seck bu leen ma wax Fatoumata Fouta Tampi bu leen ma wax armée bi mi ngi préparé wu pour troisième mandat bu leen ma wax loolu parce que loolu ñun xam nañ ko xam nga lan la ñu war a wax Pape Alé xam ma fa laay xaar ci moom li muy def am na solo trop nag waaye bu mu fàtte fichier bi bu mu fàtte Matam bu mu fàtte élection yi Pape Alé nan la mën defee une heure nan la mën defee émission une heure de temps waxul ci élection yi parce que Macky Sall pour génne ko fi du aji Sarr du affaire Adji saar moo ko fi jëlee parce que affaire aji Sarr Macky Sall buqat la Pape Alé wax na ko sa Seck moo gën a xam Macky sàlla ñëpp Pape Alé tegal nañu tegal nañu mission kii bi vidéo bi mu ne xool leen Idrissa sekk ne li muy wax wàccaacaa wàccaacaa yëpp buqat la te dëgg la Macky Sall tapet la ndax affaire aj Sarr bi ba mu amee Macky dafa jël bagage am daal di daw Moustapha Diakhaté ci boppam wax nañu ne Macky Sall amoon na sax ku ko remplacer est-ce que yéen may dégg est-ce que may dégg. Macky Sall la France 24 cette affaire là elle sera traitée cette affaire sera traitée parce qu'il y a des gens là qui ont appelé euh, euh, euh, au combat mortel là. Cette affaire, elle va pas être traitée. Vous pensez que les gens là vont venir et ils vont détruire les biens détruits, détruire, etc. Non, cette affaire, elle sera traitée. Des sopes, l'on le bug. élection yi la bëgg ñu fatte c'est-à-dire <laughs> c'est-à-dire mais ñun Ousmane Sonko dégg naa ñu ngi pare dara waaye seen pare bi yëg mu ngi bëgg a yàgg parce que Clédor nee na ba mu demee Seneweb nee na ñoom ñoom ñu ngi préparé dara tapet la waa waa ana Ousmane Sonko tey lan la wax ci Matam Ousmane Sonko lan la wax ci fichier bi xanaa déggu leen Pape Alé euh, euh, cassette bi mu ñu tegal ci Macky Sall c'est-à-dire Macky Sall moom xam na ñu xeexee. Macky Sall dafa ne woon il faut qu'il y ait une coalition républicaine société civile les marabouts euh, euh, les partis politiques Macky loolu wax les syndicats ne ñëpp bolo Macky xam na ni muy xeexe ñu ñuy xeexe ñoom Ousmane Sonko loolu lañu wara def dañu wara def coalition je pense que d'or wax nako néna am na lu ñuy préparer il faut que ñu def coalition bo xamné li tax ma doon attaquer Mr Layem Layem ak ñoom d'or ñu fi nekkon di ñu wax ay dañu voter ak suñu téléphone waxuma len lool ay waxu nax sax saxandang la waxuma len ko fi newoon na la ñoom Sonko duñu sax wax waxu téléphone bala nga ne naam day fekk ya nga fa yow ya nga ñëw di ñu menacer ñom dambo tok di ñu wax naan dañu am seen ben expert dafa am ben logiciel ñëw len ni la ñuy def fichier bi ñu voter ak suñu téléphone mak bala nga balaa nga ne naam day fekk yaa nga fa bala ngay wax waxu waxu fa voter ak téléphone est-ce que est-ce que est-ce que vote dina am est-ce que Macky Sall du narul élection le 23 janvier est-ce que dina am parce que lo xamné ne Ousmane Sonko xamuñu sax ndax dañoo bokk Matam <laughs> mais li c'est extraordinaire li Sénégal rek la am li Sénégal rek la am nit ko xamné ne xamuloo sax ndax bokk nga Matam xamoo ndax Guirassy le maire sortant de Kédougou gars gën leen laaj gën leen partager Guirassy le maire sortant de Kédougou il ne sait même pas s'il va être candidat

bourrage des urnes lu toll ne ay am na ay gox yoo xam ne Ousmane Sonko yow askan bi bu ñu dof dofloo yenn bureau de vote yi kenn du fa nekk ñoom Macky nag ñoom ñooy jël def bourrage de vote jël lu leen neex ñu def ko fa ne ñii ñoo votel Macky Sall ñu votel ñoom yow ak seen bu leen neex sax ñu jël ko sànni maa ngi dégg ñu génn communiqué barki démb di wax fii ak le 19 xaw ma